waa xew xew bés bi eh, dañoo ne eh, journée de l'Afrique parce que journée de l'Afrique bu ko waxee mooy nan la ñuy def ba dajalee doomu Afrique yëpp ñu mën a booloo mën a ñëw sottante xalaat fii mais aussi mu doon cadre ba nga xam ne dafa ñoo war a boole pour ñu xam ne ñun ñoo bokk ndey baay eh, ñoo amul warul am guinéen la wala malien la wala sénégalais wala congolais la donc dañoo bëgg ñun ñu dem ba suñuy ndaw jeunesse africaine ñu xam ne Afrique ñun ñëpp benn lañ benn peuple lañ kenn waruñoo xaajale tubaab bi nag moo moo ñu xaajale malheureusement loolu mooy dox ba léegi moo tax boo seetloo ci thème yi ñu choisir muy l'éducation à la citoyenneté africaine pour euh, promouvoir le panafricanisme maanaam nan la ñuy yaree suñuy ndaw ci ñun suñu aada ak suñu cosaan ci lu ñu moom parce que dañoo seetlu ne tubaab bi daf ñoo daf ñoo ëpp doole dañoo dem ba indil leen ñu infor euh, forcé ñu ñoom seen i yar seen i doxalin seeni i waxalin seen i jëfalin ba seen jàng ñoom ñun seen i programme lañu yor donc ñu ne journée bi il faut ñu def ko non seulement pour wax ci loolu ñun ñi bàyyi xel ñun africain kenn waru ñoo xaajale ba ñuy noonoo suñu biir di bañante suñu biir mais aussi war nañu xool nan la ñuy jëlee suñu jàng adapté ko ak ñun suñu aada ak suñu cosaan